envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TapTapSend. Vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous? Effectuez vos transferts maintenant. maintenant. ay ca jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloowaat ak yéen seen seen leader bi di people 221 eh, di nuyu kilifa diine kilifa day di ñaanaat réew mi di Sénégal yàlla na suñu borom dolli jàmm ku ne gis na procès bi nga xamante ni moo am tey fii ci tribunal bu Pikine wala tribunal bu Guédiawaye mu dox ci diggante Aziz Dabala ak ki nga xamante ni moo di Waly ginnaaw faatin wu ñaaw woowu ñu leen faat euh, yoon nag di ubbi enquête am na ci ñoo xam ne jot nañ leen a jàpp waaye ba tey kenn xamagul euh, lan la justice di wax ñu ngi ci tribunal bi waaye ma toog kenn koo xam ne dafa bokk ci waxkat yi ñu tuddee leen ay influenceur mu di sëñ Bada ku ne gis na procès bi mu commencé ba tey moom tamit mu ngi def ay recherche yaakaar naa tey moom bokk na ci ñi nga xamante ni Euh, euh, du ma ne li muy wax muy dañ bariwul waaye bari na loo xam ni bu koy wax it jàpp naa ne ci lu leer lay teg parce que des fois ma dugal vidéo mu woo ma ne ma guy gi ah émission bi nga dugal envoyé ko ndax ma mën cee sukkandiku pour wax parce que lépp looy wax it na doon lu leer. Euh, maa ngi lay jaajëfal ci liggéey boobu noonu parce que sëñ Bada yu demee nii day baax nit ñi bala ñuy wax ñu vérifier xam li ñuy wax surtout affaire u te gis naa ni boobu ba te wax dëgg ci nga maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen fay di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu di leen nuyu bu baax di leen jaajëfal di nuyu Sénégal yi diaspora bi boo leen ñu nuy suivre rek euh, di wax ne comme li nga wax noonu rek loolu moo ñu fi indi tey moo tax tey ñu xëy tey ñëw ci tribunal bi yow gis nga ko sax tribunal bi tey kenn xaju bi foo sànni mbàtt mu toj waaye boo duggee ci bii tey ba gis nag sa yaram day daw ndax tellement day mel ni tey nan rey Aziz Dabala Euh, kon ñun loolu moo ñu fi indi justice soit fait pour Aziz Dabala loolu moo ñu fi indi parce que tamit waxkat yi bëri nañ ñi ngi ah. vas-y waxkat yi bëri nañ ñi ngi wax te li ñuy wax xamuñ ci dara. Mm-hmm. boo xoolee ñi war a wax ñoo waxagut. Mhm. ñi war ta wax rek ñoo fi nekk di taltali. d'accord euh, bala maa ñëw ci ñi war a wax sëñ Bada mbir mi doon lu doy waar loo xam ne bi mu xewee euh, automatiquement euh, ban jàngat nga ci def Sénégal bu ñu demee ba léegi rey nit nekk comme bonjour bu njëkkoon rey boo ko déggoon ren bala nga koo dégg déwén mais léegi daanaka rey wi comme tulleeg Mali bu ñu demee ba jamono tollu foofu benn semaine mën nañ cee rey cinquante personnes ndax jotul nit ñi tiit tamit. waaw loolu jar na mais boo gisee li ko waral yëpp mbirum drogue la drogue bi. xale yi nga xamante ne ñu ngi drogué wu euh, di suus di voler yow gis nga ni mu demee apartement yi boo demee. xale xale yi ndaw ñu ngi tëju. Mhm. di voler di suus te ñu koy def sax euh, boo xool da nga fay fekk ay kilifa léeg-léeg. donc di vois te loolu dañ leen ko yombalal trop loolu tax na ba nit ki day dem ba nga xamante ne dootul ànd teeg sagom day dem ba nga xamante ne mën naa xaaj sax mën na koo tane ni muy xalaatee ba tax na ñuy def jëfinu ñaaw yi ndax ni ñu def Aziz Dabala ak ñeneen ak ñeneen ñëw xeex ak yow fekk la sa biir kër ray la ba pare sàngal la jëlaat kenn ki ray kooku kii ko def ñi def loolu xam nga ne duñ ay nit yu ànd ak seen conscience kon am na leen lu ñuy jël loo xamante ni nii euh, doy na waar. kon jàpp na parce que li tax loolu mooy. Mhm. man gëmuma euh, euh, noppam nga fekk nit taxaw nii rek nga ñëw rendi ko sans problème gëmuma ni loolu nit ku dina ko def. non duñ logique dañuy dañuy am yi ñuy jël parce que léegi. boo xoolee xeetu drogue bi dafa dafa dafa bëri dafa bëri waaw wàllum cocaïne bi euh, wàllum volet xolal volet rek suus 5000 3000 nga am benn naan ko xam nga yooyu dafa doy war parents yi tamit nañ gën a euh, vigilant waat seen njaboot yi mm-hmm. mooy li sëñ Mountakha def bi coow li bëree dafa dafa na xaaral ma songu université tabax daan ne xale yi dem leen jàngi. ndax ku am xam-xam rek da yeewu lu bëri nit ñi ngi koy def boo xoolee ñi tamit aussi parents yi donte Ousmane Sonko ak Diomaye ñi ngi liggéey donte réew mi ñi ngi ko jé a jëlee yóbbu ko ca kanam. Mm-hmm. mais il faut tamit nit ñi jàpp ci sensibiliser nit ñi yee leen parce que nit moom bu yeewoo rek yaakaar naa lu bëri du ko def. d'accord mais côté boobu noonu ci ñi vérifier ko xam fi mu dëkk jël carte d'identité pour en cas où képp ko fay dugg ñu xam ne diw fay dugg ci côté sécurité. xale bu ndaw sax kenn du ko wutali appartement xam ne amagoo 18 ans ñu lay jox appartement te loolu à chaque fois nga ko ci gis guy gi tey boo ñëwoon tey bu la neexoon maak yow mën nañoo ànd dugal la ci cité yi. ci quartier yi ne la appartement yii ak yii ak yii gars yi dañ koy luyee te yii ak yii boo demee di nga fa fekk jaaykatu suus di nga fa fekk ay voleman di nga fa fekk caga ji kon moo lay wan kon réew mi fii mu toll fi mu toll yàqu na te chaque mhm. jour gars yi ñi ngi gën a poussé mhm. pour gën a pour gën a def loolu pour gën xiirtal loolu seen bopp te mhm. amul njëriñ parce que réew bu ñu demee ba toll foo xam te ne ndaw ñi drogué wu tux yàmbaa naan a avancé il faut loolu tamit ñu xoolaat ci bu baax a baax d'accord tey boo ñu doon wax kan mooy Nabou Leye parce que des fois su ma jumul daan ngeen bokk ay live ci li nga xamante ne mooy TikTok bi bari na loo xam ne daan ngeen ko partagé tey wax kuy Nabou Leye waaw dëgg la euh, def nañ live bu yàggul rek euh, ñu bokk nañ live muy lu neex parce que boobu ñu ngi doon waxtaan ci wàllu tànn biir sabar yi mu doon organisé donc boobu bëggoon ma cee tuddee benn donc tu vois euh, donc depuis boobu nga nga jël dégg ne parce que amul sama numéro aw ma numéro mais live dañ ciy tase ma gis ko mu nekk ni ku baax ni ku sympa moo tax bi ma déggee xale yi di ko taf rawatina ay aada moog yooyu di ci wax. Euh, man dama daar sama gémmiñ parce que nit ñi leen di déglu sax man yéem na ma jaaxal na ma ndax wax dëgg yàlla euh, nit koo xamul mhm. fekke woo mhm. yow yaa ngi nekk ba Allemagne nekk ba Europe munoo ñëw Sénégal bëgg a régler problème Sénégal te yow boo yaa naan li gën a jekk ci yow mooy nga régler sa problème yow nooy ñëwee ah. looloo gën a yomb mhm. munoo ko def ngay jël ay nit di leen tuumaal man nag néew ma moo def wala moo defut waaye li wér te wér lu ci waay wax ba fii may wax yow te dégluwoo procureur de la république mu génn joxe verdict bi <laughs> waxul dëgg waxul dëgg dëgg la de te yaakaar naa yow tey looloo tax nga ñëw fii pour déglu ki nga xamante ni mooy euh, procureur lan lay tege pour nga mën a dem xam looy nettali mais bien sûr mais bien sûr loolu la parce que euh, nit sa information da ko war a jëlee fu leer suy suy leer comme ni nga ko waxee ba léeg dama lay woo loolu ma woo Maas wala Fadel laaj ko nii ak nii parce que xam naa ne yéen nekk ci terrain bi donc lu bari a koy kii donc nit noonu nga war mais waroo jékki-jékki teg say pexe rek toog di informer ay nit yoo xamante ne tey yaa ngi leen di réeral te ñu ngi lay déglu yaa ngi leen di réeral donc loolu dafa bare di yàq nit aadama moom xam naa ne ëllëg yomal xiyaamam dina metti parce que dafa dafa gaaw ci yàq jigéen moom yàq jigéen la gën a sawar loolu waral ba ba léegi da ngay gis muy affiché nabu man dama jàpp na sax nañ ko fay pour muy affiché nabu di ko yàq mais tey jii bu nee tey moom moo def d'accord dina am raison mais tey jii bu fan la koy fan fan la fan fan la koy waxee. Mm-hmm. am na jàpp naa ne sax Adama amul gàcce parce que taxaw bëccëg dara kàmb simmee ko say awra génn kooku yaakaar naa ne gàcce dara safu la. d' accord ci boo xamee diggante Nabou Leye ak Aziz Dabala euh, Nabou Leye bi mu nekkee tey boo ko waxee mu ne Aziz Dabala sam papa la moo ma dugal nga ne ay bu ñu jëlee ñaawteef di ko def ci moom dina accepté ñu jaar ci moom ci sa xalaat en tant que ku xam Nabou Leye ak Aziz Dabala ni ñu mel. non loolu moom si sama xalaat man su ma day analyser jàpp naa damay jàpp ne déedéet Euh, parce que ñaare nit showbiz moom gis naa ci ñoom benn mbir mooy dañu gore. waaw gore nan mën nañ jàppalante seen biir bu baax a baax te kuy dem bay feccal Youssou Ndour muy daj dëpp gi la roi di mbalax. di jaxasoo genre nit yooyu nga xam te ne ay nit yu baax lan ay nit yu yu yu yoo xamante ni wax dëgg yàlla amuñuy daray safara. ñoo ñu ngay jaxasoo ñoom yaakaar naa ne yenn détails yi doo ko def. amaana nag buñ reyee sa xarit ki nga xam te ne yéen ñaar yéenay nekk waaye faaw ñu téye ko loolu mënta ñàkk. yii yi di wax yëpp ay détails la. ay ay ay ay ay nabu yëgu dee gi mais nit day waxee noonu loolu dara nit papaam dina de yaayam de mu dëgër dem suuli ko denc ko ba ñëw après toog ay fan affaire bi doo koo jàpp wala nga am foo jaar sax am na foo xam ne boo fa jaaree man mii tey nit bu ñu ko doon rey sama kanam mën na maa bañ a def dara parce que ni sama yaay deewee sama papa dee ma assisté leen. merci ci ci waxinam wax naag ne parce que tey jii nabu xam na kii Aziz muy papaam mais mm-hmm. tamit ñi ko agressé ñooñu tey ci koñam lañ dëkk. Mm-hmm. ñuy def jëf ji ci koñam na dëkk. Mm-hmm. tey jii tamit mën na leen xam di jokkoo ak ñoom. tey jii mën na xeex ak ñoom mu àtte leen ñu dem. mun ñooñu mën nañ ko woo téléphone ne ko ana na mun leen waaw egg na këram a xam ban intention la ñee am mais loolu lépp enquête dina ko leeral parce que Sénégal suñu police duñ cuune. Mmh. ñëpp xam na ne Afrique nous sommes les meilleurs. Mmh. ci wàllum police ak armée lépp. Mmh. kon jàpp naa ne kon nit ñi bu ñu amee confiance sunu justice te teey te dal rek. dinañ xam dëgg gi léegi fu mu féete. tey yuuxu dina jib fu ko foogee woon. parce que li ñuy yaakaar yëpp yëpp man jàpp naa ne du loolu. ndax fu ñu toll même tey police dégluwul réseau yi. police tey mi ngi ci yoonam di dox. ñoom xam nañ bu baax li war a def. mais c' très normal tey ñu téye nabu. loolu c' est très normal. mais xaw ma moo def moo deful mais li ñu koy def daal ci internet bi ñaaw na di ko taf di yàq dëram parce que bu fekkee ne tey yoon ñëw na tey yoon setal ko. tey ji ñoom dinañ ko amal àq bu rëy rëy rëy. Mhm, mhm. d'accord ñu dem sax ba gis ci yi ñu dem ba dégg ci ay affaire ñaari tur ay borom ñaari tur laak ndax tey nit ki bu deewee kaddu yooyu noonu war nañ ko jël di ko yëkkati te kenn amu ci loo xam ne nii lu leer la. waaw xam nga bu fekkee ne moom la moom d'accord nañ ko yëkkati mais bu fekkee ne moom ñu ngi koy ñu ngi koy dolli ñu ngi koy dolli ay tiyaaba. Mm-hmm. ñu ngi koy dolli ay tiyaaba parce que ni tamit looy wax loolu tamit dalaa war a leer wax dëgg mm-hmm. yàlla. Mm-hmm. waaye dégg naa nii naa rek Sénégal daal moo toll foofu mu toll nii. te jàpp naa ne tamit aussi dina changé. ndegam comme tey jii dem nañ ba tey bu na bu la toogoon fii tey na la. dangay ngay màggali Touba période màggal bu ne la suba la màggal da fay six six mille six mil francs doo ko gëm. ci àddina ci bis. doo ko gëm tamit noonu. da ngay dem fii ba Ziguinchor daanaka gis nga prix yi ngay fay. Mhm. doo ko gëm. Mhm. tey loolu lépp yaakaar naa jeex na fi alhamdulilah rabbil alamin mhm. boo toogoon tey ji ñu ne la làmb ji tey dina jeex 19 doo ko mës gëm ci àddina. te loolu lépp alhamdulilah kon loolu lépp ay progrès la ak yeneen ak yeneen ñoo yeneen yoo xam te ne tey mi ngi am ci Sénégal ñu ngi avancé ak ñi ngi wax te xamuñu dara ci li wax tamit dina dem ba jeex rawatina waa Europe yi nag hmm. lu ñu dal tey waa Sénégal ñun waa Europe yi la parce que réseau yi ñoom ñoo ci njëkk a nekk di saaga ndey tàmbalee ci Assane Diouf tàmbalee ci Adamo ak Sokono SRS gis nga ko ak Californie Europe na ni nekk du ñëw Sénégal lu leen neex na ñuy wax hmm. parce que xam nañ duñ leen tëj mais jàpp naa ne bés dana ñëw loolu dina jeex incha allah d'accord euh, tey rey wi lan nga yaakaar ni moo waral moo moo moo ko waral ñi naan jalousie la ñi naan fiiraange la lan nga jàpp ni moo waral loolu tax ma ne yuux dina jëf fu ñu ko foogewul parce que tey euh, Aziz du milliardaire ban koy fekk këram di ko agressé du millionnaire ban koy fekk këram di ko agressé di ko def mhm. jëf yu ñaaw ji mais ñi ko def lii plus de douze jam nga tiim ko di ko jam ni dem yu xóot kooku yaakaar naa ne leneen la comme réew mi nga dañ ne nii am na naa nga rey mhm. <laughs> kay dëgëral dëgëral sa bopp rek jàmbaar mhm. parce que ñun ñëpp ay góor ñu nous tous des humains mhm. fii ñëpp a bëgg a dund Sénégal amul bandi waaw nappantee fi am kon jàpp naa ne tey ñii lii ñu def nii nii nii nii am na ñu nekk seen ginnaaw de. Mhm. man nga waxoon naa ko fi sénégalais yu bëri di ma dal nee naa leen nit dafa soxor. parce que mhm. ndegam Youssou Ndour nanu fekk mu bàyyi ko ba mu tukki ñu fekk nit koo xamante ni dafa nduróog Youssou Ndour biroom ñu jël paaka jam ko ba mu dee. Mhm. mooy bi mu wayee jamonoy satalaay. boobu ñun ay xale nan. Youssou Ndour ne li ko gën a métti ci àddinaam mooy loolu tey jii dafa tey jii yàlla moo ci def ndox mu sedd waaye tey jii dañ doon fàttaliku Youssou Ndour naan cay yàlla. kon kon nit ñi bàyyiwul kenn te wax naa ko jox naa exemple nee naa am na ñoo xam ne ne boo amee bës wala nga siiw jaral na leen lu nekk hmm. léegi nag bu ñu la defee loolu mënu nekk parce que boo xoolee Aziz tàkkoon na fi fay hmm. jékki-jékki temps yi mu tàkkaat hmm. bu ñu jéemee jéem kii wut mën nañ ko yabal ay nit sax ñu rey ko. Hmm. mën na nekk. Hmm. Hmm. donc li ci des mooy ñu toog xaar ki nga xam ne mooy procureur yaakaar naa ñoom ñu ngi ci biir euh, fi mu toll nii yaakaar naa dañu pause. donc li ci des mooy toog xaar lan la procureur di joxe. Euh, ban message ngay lancé waale aussi. waaw di di lancé na ñëpp dal te jox euh, confiance sunu justice parce que wax dëgg yàlla mosuñu fi am crime. Mm, bu mel ni euh, te te feeñut Sénégal sax lay wax léegi ku fi def crime gaa gaa jàpp la waaw wax dëgg yàlla xaarañ nañ te ñu ngi liggéey quoi mm-hmm. waaw te mën nañ li ñuy def mm-hmm. franchement da ngay gis tey ji boo demoon tey Dakar ñu jàppe la ba jannatu voilà tu vois man dem naa dem naa miin naa yooyu euh, ay ay section recherche miin naa rëbës quoi mais gars yi bu ñuy ñëw guy gi <laughs> gars yi gars yi bu lay enquête guy gi kenn mooy njëkk a ñëw waxtaan ak yow ne la non li nga def nangam du dara xoolal met la bien à l'aise <laughs> xel la sax café nga yaakaar ne kii daa far ak yow keneen ñëw xoolal tengal. non gars yi dañoo garaaw non par force na ngay wax. dara nee na miin naa yooyu. gars yi fii bu yeboo lu waay di def na ko xam ah dama leen xam accident yi nii wala a la procureur bu bees bi nga xam ne uh-huh. tey la jël fonction. Ah. Uh-huh. du ñàkk tamit message boo xam ne di nga ko lancé waaye la parce que dem gis nañu Sidy Diop wax dëgg yàlla libéré nañ ko sénégalais bari bëgg ci aussi tamit du ñàkk dara loo xam ne dañ ko ko lancé waale pour bu ëllëgee mu moytu yu demee nii ak yeneen mbokki artistes am yi. dëgg la waaw lool moom xam nga leçon la pour artistes yëpp waxuma artiste rek waaye sëriñ si sëriñ si nga xam te ne kuy dawalati oto incha allah rabi di nga nekk en règle parce que loolu tamit sa sécurité la ndax dañuy calculer bu jëyee amee wala dara man tey jii mënoon nga génn mënoon na génn tey bañ a yor tey doomu jàmbur à vie lay tëdd tu vois kon donc lii ñu def sécurité am la njàngale la boo xamante ni ñun ñëpp dañ ciy na nattu la ci moom ndax yàlla ba ngir euh, wala ngir maanaam euh, di ko musibaal ngir ku ñuy baal. Mm-hmm. tu vois donc euh, yooyu yëpp dafa dafa nekk yoo xamante ne mën naa am tey bu génnee mën na koo jik bu baax baax a baax waaw yàlla yàlla na ko yàlla defal. parce que wax dëgg yàlla gis nañ fa Matar Diop suba teel. moom it mm-hmm. taxawaayam. muy mm-hmm. nit baax. donc ñu ngi leen di ñëpp daal. li li ci nga après show biir la. du tee tamit terrain bi ñoo fi nekk garsa mm-hmm. garsa ah, mm-hmm. voilà loolu la quoi mm-hmm. mu ngi noonu donc kon ñu dem ñu delluwaat fee nga xam ne mooy tribunal xaar tey lan la procureur te kitaab lépp lu ci am rek topp leen ko fii ci people 221 ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax merci mon